ñoo bëgg si mil dugg dugg si milieu social di jàppale ñi nga xamante ne tey commencé ko si ñi nga xamante ne mbënd mi ñoom la dal seen kaw euh, ñu ñëwoon fi nag fan yee ci ginnaaw fekk ay supporters stade Mbour yoo xamante ne mm, fii lañ dëkk bokk ci ñun seen kër daanu rëbëdëb jëloon ay initiative ne day ñëw jàpp ci liggéey bi tabaxaat miir bi euh, ñu nekkoon ci nag boobu ba léegi di liggéey tey yàlla def la loolu tey sotti euh, waaye nag euh, mbir moom bu amee rek dafa am lu ko waral euh, ki nga xamante ne mooy suñu président d'honneur moo ci jàpp muy Moussa Mbaye ak moom moo ñu jàppale ba nga xamante ne lii yëpp tey liggéey bi fi nekk yëpp mën a nekk tey loolu moo waraloon activité bi tey. waaw am nañ ñaari cible am na beneen kër boo xam ne suñu beneen supporter bu tudd Ousmane Ndaw tamit moo fa dëkk demoon nañ fa moom it dafa inondé woon mais comme bii moo nekkoon priorité comme fii miir bi dafa daanu. ñu ne nañ ñëw tabax ko mais foofu war nañ fa yóbbu ay ravitaillement war nañ fa yóbbu ay matelas dèjà yenn yi ravitaillement ñu war a yóbbu mu ngi si oto bi ñu gaare nii bu ñu paree léegi ñu faa a dem pour yóbbul ko ko almeeru tefes yi dimanche incha allah dañ fa war a dem ak suñu parrain Moussa Mbaye incha allah pour sëq almeer yi buntu parce que buntu bi tamit da doon taa bu ñu demee Ibou Ngatte mii nga xam ne si ñun la bokk moom dafa détecté woon foofu ñu ànd fa dem fa xool gis ne effectivement foofu tamit day taa foofu dimanche incha allah fa la ñu war a dem pour pour pour pour sëq ko foofu tamit waaw may tëjee nak euh, ngeen baal ma parce que question yi bëri na te ñu ngi ci liggéey bi euh, encore une fois mbuur ñun ñëpp ñoo ko di leen wax rek ne li ñu gis nii ñu ngi ciy woo ñëpp képp kuy doomu mbuur ñu ngi la ciy woo peut-être yàlla ñun la jagleel ñu koy ñu ciy nekk ànd seeg suñu président d'honneur Moussa Mbaye mais am na ñeneen ñu ñu ko ëpp ñu ñu ci ëpp yéene ñooñu ñu ngi leen ciy woo ñëw jàpp ci euh, assemblée générale bi nag assemblée générale stade Mbour la assemblée générale waa Mbour la du assemblée générale Rebeub Reub rek ñun li nga xamante ne ñu ngi ko ci war a def yëpp ñu ngi ko ciy def bu ñu convoqué réunion ñu ngi ñëw bu ñu bu ñu wootee ñu ngi dem te li nga xamante ne moo ci suñu xalaat tamit ñu ngi ko ciy wax umpalewul kenn nag am nañ candidat ñun waaye nag terewul ne dañuy ñaan yàlla yëfi jaar yoon ndax stade de Mbour ñëpp xam nañ ne patrimoine national la euh, boo xamante ne Sénégal tey bu ñu doon bind livre stade de Mbour même bu nekk équipe bu amul trophée ci équipe yi mag yi la bokk kon équipe boo xam ne dañ ko war a delloo li mu moom ñun li ñu gis mooy Stade Mbour mérité wul lii ñu à deux mois des championnats ba léegi ñu ñuy wax age boo xamante ne ba léegi mënuñu ko taxawal wax dëgg ñun supporters yi gënaluñu bu ñu sañoon nag heure bi day doon fekk ñu ne ñu kii mooy président bi ñu jublu ci wàllum liggéey bi mais comme ni ngeen ko xamee rek euh, ñun supporters yi pacc lañ ci biir Stade Mbour ñu lépp mais nag am nañ ci wàll te wàll woowu ñun dañ koy bay di ci liggéey saasu ne age bi ñu ngi ci ñu ngi ciy dox chaque dimanche ñu ngi ay réunion yoo xamante ne du àgg tenir nañ dimanche bi passé dimanche bi di ñëw jàppaat nañ beneen réunion bu ñu sañoon nag ñi nga xamante ne tey ñoo ñu jiitu nekk suñu kanam yóbbuñ suñu équipe assemblée générale bu fekkee dañoo ne consensus nañu yóbbul équipe bi mu dem consensus mais lu ci mënti am daal nañ ci sóoraale Stade de Mbour te xam ne yéexal bi yëpp Stade de rek moo ciy gaañu ndax équipe yëpp tàmbali nañ ñun ñu nekk fi di xëccoo di nekk fi di ut pour pour pour dem. Euh, d'une d'une manière mën nañ ko gisee noonu ci benn côté mais nag euh, am na loo xamante ne ñun supporters yi bëgguñu cee àgg. ndax ku xam supporter Stade de Mbour xam ne am na doole ju mu xuloowee am na doole ju mu xeexalee mais buñ ko defee rek lii laru suñu équipe lay jógee moo tax bëgguñ cee àgg boobu ba léegi nag ñu ngi waxtaan ak ñoom ci jàmm ak salaam di leen wax ne li lay war suuli nañ ñu jëlal suñu équipe ñu yóbbul ñu ko assemblée général assemblée générale boobu waxuñu ne tey ñun suñu candidat mooy falu waxuñu ne kee mooy falu mais au moins waa Mbour tànn mais ci tànnin bi nga xamante ne mooy day doon tànnin boo xamante ne day day day day équitable ci ñëpp day équitable ci ñëpp ki yàlla war a fal mu fal ko loolu fi mu toll nii moo fi nekk te ñu ngi leen di ñaanaat encore une fois am na loo xamante ne buñ ci duggee rek mën nañ dema dema dema dem ba mu yàq lu bëri te jaru ko. waaw surtout loolu nag li gën a tax affaire bi mënta am si la bokk parce que am na critères yoo xamante ne tey boo ñu ko bëggee tegal ñun supporters yi nga xamante ne ñu ngi ci équipe bi yàgg ci ñu xam ni équipe bi di doxee duñ ko mën a nangu ndax tey euh, ñi nga xamante ñoom la yàlla dénk équipe fu ma toog dama koy wax dañ leen di remercier di leen sant si liggéey bu rafet bi ñu defal.

waaw tout d'abord nag dama koy tàmbale ci sama waa koñ parce que ñoom it boobu ba léegi vingt jour a ngi nii liggéeyuñu bokk ak man jafe-jafe yi di ma jàppale di ma kii bu ma kiiyee sax ñu ne ma ñun ñëpp ñoo bokk affaire bi di ñu ngi am mouvement boo xam ne suñu gox la tudd jeune jàmm gën yëpp presque ñu ngi ci di bay seen waar di di leen gërëm di leen sant ñoom ñëpp nag waa koñ bi yëpp gis naa ni ñu taxawoo taxawaay bu rafet nag ñu taxaw waaw di ñëwaat nag sama club muy stade de Mbour comité supporter rëba dëb gis naa ñoom ñu boobu ba léegi ñoom it tooguñu ñu ngi dem di jël seen essence di jëli ay bagage di indi di def daal seen kamtalaay kàttan bokk ak man jafe-jafe yi waaw te dañ ma gën a motiver waat seen bopp gën nañ ma dugalaat seen biir waaw te lépp loo xamante ne nekkoon naa ko ci ñoom dinaa ko gën a jàpp muy côté social bi côté sport bi lépp naa ci gën a taxaw comme ni mu waree